asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ak xarit yi delsi nañu ak yéen ci l'émission des émissions ngir fas yéene waxtaane lépp loo xam ni xew na ci pénc mi ñu koy amal ci fii nga xamante ni moom lañuy wax solution info di ko amal ci solution info saa su ne di waxtaan ak sénégalais yi ginnaaw bi ñu bari rafetloo kàddu yi nga xamante ni bi ñi ngi koy yëkkati ñenn rafetlu lool gis-gis yi nga xam ni am nañ ko ñu nekkoon kat loolu faw ñu di ko continuer di waxtaan li nga xam ni mooy sunu xalaat ci réew mi du caagi ni li ñuy wax mooy dëkk waaye na leen bir ni kàddu gépp koo xamante ni ñi ngi koy yëkkati lu ñu gëm la sunu dëgg la ñenn di ko partager ak ñun ñeneen gisee neneen nu ni ñu gisee loolu nag mooy defar am pénc sama xalaat rekk a baax du lu baax kon gis-gis yi mën nañuy wuute lépp di doon njariñu réew mi dinañ waxtaan ci tey assemblée nationale yenn yoo xamante ni bi gis nañ ko fa ku ca mel ni Barthélémy Diaz yëkkati ay kàddu jëmale ko ci député boobu ñuy wax Amy Ndiaye Gniby ci ëmb bi nga xamante ni bi def na fa ay révélation yuy wane ni jàpp na ni ëmb amu fa waaye itam dinañ waxtaan ci ki nga xamante ni moom la ñuy wax Serigne Abdou Bara Dolly mi taxaw wane beneen gis-gis dal di ne kat moom li mu ànd mooy àndul benn yoon ci li nga xam ne moom la député yi di def ndax président Macky Sall la mu def ca Touba ak la nga xam ni dogal nañ ko ca Touba yooyu nag bokk na ci li tax mu daal di teg ci table ji ak kàddu yi nga xam ni moom la Ousmane Sonko yëkkati ñu bari jógati wax ni yéekatu fitna mi ngi nii ci ginnaaw biñ ci déggee ni dafa woote mortal komba ñenn ñi tuddee ko noonu ne xeex la woote lan moo ci sunu xalaat ak sunu gis-gis léegi léegi ñu daadee faram-fàcce benn par benn mbokk yi dañuy jiital ki nga xam ni moom lañuy tuddee Barthélemy Diaz mu am kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko jagleel ko député boobu nga xam ni moom lañuy ñuy wax Amy Ndiaye bi ginnaaw bi ñenn taxawee ay jafe-jafe am ci assemblée nationale ñenn jóg ne Amy njaay dafa ëmb Barthélemy tey def ay révélation yuy wane ni ëmbul wa ilaa bu ëmbee it du jëkkëram mooy ki nga xam ni moo ko ëmbal bi Barthélemy waxee loolu saal bi yëngu na ma ne nan la jigéen di waxee nan lañuy waxee jigéen ne ëmb nga te waxtaanuñ ceeg moom ndax politik ak bëgg dugal nit jar na ñu sosal nit daldi ne diw dafa ëmb mu wëlbatiku di ko nangu dem tëdd ca lalu hôpital ya ñu naan dafa ëmb dañoo yàq biiram parce que bu ñu fàtte ni docteur Malick Diop bokk na ci ñi njëkk a taxaw wax ni ndaw si dafa ëmb waaye docteur Malick Diop man convaincre ma wax yi nga xam ni wax na ko parce que docteur Malick Diop dama ko déglu ñetti yoon yu wax yi woroo bi ci njëkk dafa njëkk a yëkkati kàddoom mu wax ci li nga xam ni moom la ñuy wax làkk olof daldi ne ndaw si dafa ëmb ëmb bu toll ci ñetti weer loolu mooy déclaration bi ma njëkk a dégg mu wax ko ma déggaat docteur Malick Diop mu wax ci tubaab daldi di ne ndaw si dafa ëmb ëmb bu toll ci neuf mois un jour ma déggaat docteur Malick Diop taxaw ci assemblée nationale daldi ne ndaw si dafa ëmb ëmb buy toll ci neuf semaine un jour ban laa ci war a gëm ci ñett yi ma wax ci ki nga xam ni moo ñëw annoncé ma ne ma diw dafa ëmb mu wax ñett yoo xam ni jenn jëmm ji moo ko wax te ñett yépp woroo anaman ban laa ci war a gëm kon su ma déggee keneen ku wax leneen lu waroog loolu taxaw daldi ne ndaw si ñuy wax ne dafa ëmb ëmbul li tax ëmbul mooy dañ ko bëgg ëmbuloo ngir tëj ay dëppite ñàkk loo leen seen màndaa day xaw a neex a gëm te kooku wax loolu wëlbatiku joxoñ jëkkëram kon day jaadu jëkkër ji ñëw indil ñu lu leer ci mbir mi bu jëkkër ji ñëwut nag indil ñu lu leer kon day mel ni kàdduy Barthélemy yi day yomb lool ngir nit dëggal ko parce que ñoom ka njëkk a génn di docteur Malick Diop di wax ci loo xamante ni bii moo ñu ko xamal wax na ñetti kàddu yu waroo yoo xam ni amul benn bu ma ci mën a téye donc li nga xamante ni bii moom lañ bëgg a def bu fekkee dañu bëgg a politiquer loolu ba tax ñu bëgg sénégalais yi am yërmande ci ndaw si ba tax ñu nasaxal ay boroom kër loolu nekkul loo xam ni lu jaadu la am réew bu ñu bëggee mu jëm ca kanam faaw ñu fexe ba yoon di tegu ci yoon ak ci kum mën a dal waaye na doon rekk yoon mbokk yi ak xarit yi député Abdou Bara Dolly taxawaloon Yewwi ak Wallu ca Touba Mbàkke bokkoon ak ñoom gis-gis àndoon ak ñoom wër ba Touba fal ko ci vent wu Yewwi ak Wallu tey bu bëggee doxalee neneen nu waroog ni nga xam ni noonu la Yewwi Wallu gisee bëgg a taxaw am yeneeni gis-gis loolu day nekk loo xamante ni bii xel day tey ci lu ni mel parce que àddina nag boo ci nekkee ànd ak ay nit mu leer la ni bu doon sa jëmm képp ña nga gañe mënoo leen a gañe waaye dafa fekk ne dafa am ñoo xam ni ñoo la nangoo jiital te ñooñu ku ñu jiitaloon nga jiitu bu fekkente ni da nga bëgg a jël liggéeyul ñooñu jàpp ni sa njariñu bopp képp la yow yaa ko liggéey yaa ngi nax sa bopp parce que bir na la ni ñi nga xamante ni bii tey ñoom nga taxaw tenir leen teg waroo ak gis-gis ak ñoom ca assemblée nationale te ngeen bokkoon nu ngeen gisee ca ba ngeen di laaj ñooña tey ñoo la indiwaat ci penc mi waaye bu doon sa jëmmi bopp képp bir na la ni mënoo nekk koo xam ne dinga nga delsiwaat ci pénc mi te du yow dong sa mag mi nga xamante ni bi féete woon na feneen gis nga ni mënta delsiwaat ci penc ndaw réew mi yow nag bu dee da ngaa jàpp ni yow yaay ki nga xamante ni kii yaa gañe waaye du da gañe yaa ngi nax sa bopp mbokk yi ak xarit yi ñi ngi dellu encore une fois di leen nuyu di leen ziar di ñëw ci li nga xam ne moom lañuy wax sunu troisième point muy mbiru Ousmane Sonko Ousmane bañut fiñ ko féetale man damay wax ni moo ko may li mu am tey muy ki ngay bëmax naan dafa violent ki ngay bëmax naan nitu fitna la te saa su xëyee di gën a jëm ca kaw booye boo jàpp ni sa communication kon baaxul wa ilaa kon askan wi partagé na ak ñoom li nga xam ni mooy fit na ak li nga xam ni mooy violence bi nga xam ni ci la leen di wow léegi kon problème bi doona tut Ousmane parce que comme que bu ci woowee ndaw ñi ñu wuyu ko te yow jéemoo diagnostiqué jéem a xool ana lan moo tax lii mu ci woo ndaw ñi ndaw ñi di ko wuyu si delluwoo ci sa bopp ngir xool loolu lan moo ko waral kon defe naa ni xamoo ni ngay lijjantee li nga xam ne mooy problème bi boo seetee violence ñu bari dañ koy wax nitu fitna mais à chaque fois man su may déglu Ousmane ko muy wax dana am loo xamante ni bii moom lay teg su fekkente ni ñoom dañoo doxalee nii danañu doxalee nii. maanaam kon bu fekkente ni tamit defut noonu doxal rek ngir lépp di doon jàmm ñu nit dinañ doxal li nga xamante ni bii mooy jàmm kaddu yooyu mooy yi nga xamante ni bii moom laay faral di dégg Ousmane Sonko di ko wax kon maanaam moom dafay nekk koo xam ni li muy wax day fekk koo xam ni warta def lu mu warta def ba noppi mu soog a wax kaddu yi nga xamante ni bii moom lay wax da lan moo waral kàddu yi mooy li ëpp solo ci bu ñu déggee wax daal dee jib bu ñu nee Ousmane ko day woote fitna ñu ne lan moo tax ñu day woote fitna mu ne nee na nañ leen génnaat xeex mais balaa nga naan nitu fitna la danga naan lan moo tax mu ne dafa bëgg a xeex wala lan moo tax mu ne ñëw leen ñu xeex dafa am ku ñu fal cim pénc biñ ko falee mu taxaw wooteloo ñu référendum dugal ci biir référendum bi ne kenn amatuta sañ-sañu def luy tolloog ñaari man ñett lu ëpp ñaari màndaa yu tegaloo ci pénc bi kooku falu bi ñu ko senegal gi yépp vote moom mu taxaw wax ni ñaari màndaa ci lay yam te bii mu nekk mooy bi nga xamante ni bii mooy bi mujj te bu jeexalee jeex na waa ñu dem ba muy bëgg a jeex am ñeneen ñu ko gëmloo ne ko kat sénégalais yi de bu la neexee demandé waatal beneen te yow yaa yor police yaa yor gendarmerie yaa yor armée nu la neex mën nga koo doxalee dugal ko ci boppu nit ngir mu gëm loolu maanaam kon dafa mel ni dafa am kenn koo xam ni moo bëgg a jël kàddu yoo xam ni waxoon na ko ba noppi wax ni def na ko ci constitution réew mi bëgg ne naa jalgati loolu yépp kooku kenn tuddeewu ko ne jëf ji mu bëgg a jëf mooy jëfu violence mais kan lañ wax ne moom mooy violence mooy ki taxaw ne lii bu ñu ko nangu parce que nit mënut ñëw jël alalu réew mi def référendum dal ne lii kat nii la war a tëddee nii la mën a demee ba noppi wëlbatikuwaat def leneen ñu ne nañ leen résister ngar nim ñu waxoon mu bañ caa dellu ginnaaw nga ne kooku violence lay woote parce que kooku ku violent la. et pourtant fàtte nga ni am na keneen koo xam ne doxalee woon na neneen est-ce que du kooku mooy ki nga xam ni mooy ku violent nañ leen delloo si xel yi réew mi ñoo ko bokk président Macky Sall damay faral di wax ni na dal te ànd ak teey te moytu ñi koy bëmax ci li nga xam ni munu cee am ndam président Macky Sall ku sunu borom teral la jox ko li nga xamante ni bii moom la wax am réew ci anam yu metti sunu boroom jox ko réew mi mu di ko diriger yàlla teral ko ba ay mbokkam tedd ci gëm naa ni mën na def loo xamante ni bii kenn du ko ci xeeb waaye ku ñuy fàttaliku la di ko naw saa su ne ci anam yu baax ay sëtam ak i doomam mën a jaar ci réew mi di dox siggi di wax ni kat senegaal am na loo xam ne bu ko amee yàlla ak sama maam moo tax loolu nag mi ngi ci buntub am ko waaye mi ngi ci buntub ñàkk koy bés bu dégloo ñi nga xam ni wékk nañ seen am am ak seen mën-mën ci moom te xamul ni ñooñu ay figurant lañ ci mbir mi moom mooy acteur bi bu jaawalee rôle bi mu ne rekk dana juum ña koy bu max ñooy ña ko bañ ña ko naan déet ñooy ña ko sopp kon na delloo si am xelam mbokk yi ak xarit yi ñuy amaat mbégte mais aussi di am kontante di jàkkaarloog yéen saa su ne ci l'émission des émissions ñu ci doon ànd ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Abdou Top nekk ci caméra bi ak ci montage bi ñuy joxante dig daje ëllëg beneen yoon incha allah ci kàttanu borom bi jërë ngeen jëf.